أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كريم المنن على استخال بفروض وسنن وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأجمعين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين bokki jullit yi bokk taalibe yi ñu fas yéene dellu si waat rek ci ndimbalal yàlla tabaraka wa taala fas yéene àndaat ak yéen ci laabire rek te fas yéene ñëpp jariñu ci di ko ñaan yàlla nag yàlla jotale ko ci yéen te may leen xelum xelu lii nga xam ne moom lañ bëgg a partager ak yéen te muy actualité boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp dund nañ ko ci doomi senegaal muy jafe-jafe boo xam ne jafe-jafe la boo xam ne sii fu waay mën a toll yëg nga ko waaye la ko tax metti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñàkk dellu ci yàlla ku dellu ci yàlla rek mettit wi ci nekk yépp mën naa wàññiku ba xaw xaw tuut sax duutoo ko yëg waaye ku ci delluwul ci yàlla dana metti lool dana tiis lool te dana yàgg lool moo tax yàlla wàcce lislaam ci jullit yi ngir solution lislaam jooju yàlla wàccee ci jullit yi nag jaare ko ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa mu ñëw xabaar nu lépp wax ci alxuraan ci moom wax ca la nga xamante ne fii moom la ab jullit wala jëfandikoo ngir mën a mucc ëllëg wane ca ay mayam wane wane ca darajaam wane ca sañ-sañam wana ci ay digleem wana ci ay tereem kon loola mën naa ni solution la kon nag lu jamono mën a indi rek ak lu metti metti rek boo delloo ci yàlla rek da nga noppal sa bopp te danga nga noppalu ndax lenn lu ci nekk na da ngay xam ne ca yàlla dong lay jóge mënta jóge ci keneen moo tax lépp loo defee ne jógewul ci yàlla keneen koo yaakaar na ci la jógee da nga sonn danga xat te doo mucc lii mooy bëgg a wax nag bëgg naa ñépp dégg ko te ku ko dégg nga dégloo ko xel xel xel te bañ koo dégloo xol rek ne wax ji dégg la neex na yooyu mënu mënu si ci mënta jariñ kenn dara ay wax bés ko waxee mu neex rek nga ne wax ji neex na walla wax ji dëgg la te bàyyiwul ci sa jëmm ji dara xamal na loola moom mënatul laa jëriñ wax day jariñe waaye wax du neex wax day waaye wax du neex mayi suñ borom nag dafa rëy lool waaye màggug suñ borom tax na nag màgg gi màgg lépp lum tànn ba am kum koy jox fokk mu ja doxale ay nattu ci diggante ba ba nattu la ci nattu la ci nattu la ba gis ne àttan nga ko mu yëkkati loola door la ko yan loola dañu ko xam sonnuñu moom ñi xam loola sonnuñu de te ku jàng istiwaar xool ca ñu njëkk ña te tàmbalee ko ci yonente bi sallallahu alayhi lii may wax dana wér péng bu duggee ci sab nopp yàlla amul dara dara dara dara dara lu muy yëkkati di ko teg ab jaamam di ko ko jox te doxalewul am nattu ci diggante bi nit ñi nag nattu lañ xamul dañoo defee ne rek lu ñu bëgg war nañ ko mën a am te nattu du dox seen diggante ak suñ borom loolu nag bu ko nit ñu xamee rek dañuy daal di noppaloo ndax boo xoolee nit ñu baax ña tàmbaleel ci yonent bi fi la baax tàmbalee fi la baax yam la ko jiitu ci yónnente kenn xamul ni ni mu toll yónnente wu ne ci saw xeet dañ la yónni woon moom ñëw ñu yónni ko ci mbindeef yépp kaafatan li naas la wax muy nabiyal mursal boo xam ne nabiya raxma la mu yónnente bu ñu yónni boo xam ne sii dafa ànd ak yërmande bi mu dikkee jikko yi yi nga xamante ne sii moo war a nekk ci nit ki yépp yàlla def na ko ci moom wàcce lépp ci moom mu tasaare ko ci ñépp loola di dox ba nëgg ni waa kooku nag yàlla ne maanaam mooy ki nga xam ne moom la def ab yonent yónni ko ci ñépp muy yonent yonent bi yërmande yonent yonent bi yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil wax ne moom a gënal ñépp tudd ay jikkoom wa innaka la ala xuluqin asim la wax ne jikko yu rafet ci moom yonent bi bi mu ñëwee dana innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla yónnewu ma ci yéen ludul ma li sa jikko yu rafet yi kon loolu yaakaar naa ne tey jii ñi jàng xam nañ ko yonent boobu nag comme yàlla nee na moom a gënal ñépp bu fekkoonte na yàlla ku mu tànn ba teg la du la tegi nattu kon du teg yonent bi ay nattu waaye képp ku bëgg a roy yonent bi sax dana tegi nattu waxuma laa jëme yonent bi kon nag jamono ji ku ci bëgg dara te wóor na ne kenn mënu ko may ku yàlla ndax keneen ku mën a doon ñaan la man waaye yàllay maye ku jàpp na mën ngaa mucc ci nattu dangay ngay sonal sa bopp yàlla dana nattu nit ci alal nattu nit ci lam bëgg nattu nit ci njaboot nattu nit ci soxna nattu nit ci lum lépp lu bëgg nattu nit sax ci jëmmi boppam natt nit ki ci ak wir gu yaramam yónent boobu nga xamante ne si lim ko yan diis na lislaam jim ko dara yan diis na mu bëgga wax ak ñëpp te nit ñi tollawuñ dimension te ku fi nekk yàlla la sàkk ku ne yor sa jikkoy bopp te yàlla xirtalul nit ñi ñu jekki-jekki wuy sukk te duñ teg yonent bi fitna kenn ku ne dalaa bàyyi ci na nga mel mu yebal yonent bi ci ñëpp na ko demal demal xoolal lislaam ni mu diisee nga ñëw fekk pàkk boo xam ne ni walla àll boo xam ne si lenn lu baax mosu nekk nga fas yéenee ñëw nag gaj bant ya li ñuy wax ruuj ratt ko bale ko ba mu ne yambang ba leer naññ nan leen ñëw leen mi ngi nii xool leen foofu ab àll boobu bi mu metti mu ñëw fekk nit ñoo xam ne si ñi ngi gëm lu nekk am doole ci alal am doole ci lépp xamuñu lu yàlla gëmuñu yàlla toppuñu yàlla di topp ay xiram yonent bi ñëw tàmbulee ci biiri bokkam wan sir xasire tekal ak xarabin bi yàlla wax tàmbulee ko ci sa ay bokk mu tàmbulee ci bokkam di woote ndànk-ndànk ba mu yàlla na ko génnal ci pénc mi muy dem ci pénc mi di dem ci marché yi di dem fépp waaye yàlla dogal am ay bokkam yi nga xam ne ñoo baayam ñoo bokk lépp xam ne bàyyi lañ ci moom ñu taxaw contrecarré ko di ko yàq lu kenn mënta dégg soxnaam it jabaram di yàq lu kenn mënta dégg yónent bi ne ci xat-xat yooyu boole ko muñ rek te fasul yéene dang dang fasul yéene jéngi jéngi marché bu mu dem bay woote mu fekk ko fa ne leen wax du dëgg dëkk bu mu dem mu fekk ko fa pénc moom dajale mbooloo mu fekk ko fa dem ba nit ñi noonoo ko mu xat lool ñi di ko fitnaal di ko dal ci kawam yàlla toog di seetaan ubbi ay bëtam xam na ne yàgg yàgg dana am ndam yónent bi xat yónent bi sonn yónent bi xat yónent bi sonn tuurum séburit lu ne def nañ ko teg am taxas buntu këram ba tabat ya daa abi lahabin wàcc lu ne yónent bi def nañ ko ko xoolal ma loolu ci diir bu yàgg nag bu ñu julli dañuy nëbbutu lu ñuy def dañuy nëbbutu mu dem ba xat màkkatal mu karam noon bu ko dégg ñëw intégré wu ci noon yi nekk xoro bi mu demee ba xat màkka mu daal dina génn dem fi nga xam ne mooy taif bëggoon leen a koweekar ngir jàpp ne bu fa demee dina mucc ci loolu mu àgg ñooña communiqué ak waa xurey si biñ communiqué ak waa si ñu xamal ko ne ko dañoo fekk ay baayam ak ay mbokkam yépp yor seen yàlla di ko jàmm mu dikk nekk ci seen biir bëgg leen a waar bëgg leen a yàqaloo seen yàlla yi toj seen doj yi damm seen bant yi ñooña ñoom it daal ni rek nit dal ci kawam ne ko fii moom duñ la jox sa wàccuwaay jël dof yaag ña nga xamante ne si ñooy prisonniers yaag ñëpp génnee ko ñëpp dal ci kawam di ko yuuxoo ak di ko fitnaal di ko sànni ay xeer di ko sonal ba yonent bi sës miir bi waaye taxul mukk xolam jeng jëm ci jéem leen a lor yàlla sax wax nag pour mu yebal malaayka yi ñëw intervenir mu ne ko doy na sëkk nañ mu muñu rek ndax bu ëllëgee gis nañ ne ñii kat seen euh, deret yi ay julli dinañ ci sosoo moom lay ñëw ëllëg moom lay karte moo tax mu muñ loolu keneen bi ko yàlla nekk léegi dama bëgg a jël ak yow ojaas al israa wal mihraj laylatul israa wal mihraj boobu mu defoon ba julli wàcc ci loola bu fekkoonte ne yàlla ki mu bëgg du ko tegum nattu kon man nga ne du teg yonent bi am nattu xoolal Seydina Yusufa alayhim salaam bi ko yàlla na a def ab yonent moom tamit da ko tegum nattu xebtal ay bakkam ay bakkam a ko gën a bañ ay doomi baayam bañ ko lool ngir bëgg gi ko baayam bëgg ba benn bés ñu nas seeni pexe pexe yiñ nas nag mooy nañ fexe ba bu di rëbbi nañ ko dem yóbbaale ko tàggu seen baay mu abal mu jox ñu ko ba ñu ko defee seen bàyyi xaw a ñaaw ci ñoom njort waaye mu boole leen ak moom xam ne yàlla moom lu mu sàmm mu sàmm ñu dem ba ca àll ba ñu jël yusufa sànni ko ci biir teen bi dikk seen bàyyi seen bàyyi ne ko tilli ya lekk na ko bàyyi bi métti am lu ko métti lool jaaxle waaye ana yàlla ma nga xamante ne sii moom moo sawe Seydina Yusufa génne na ko ca teen ba ak lam fa sonne ak lam fa daj ba mu génnee ca loola yàlla tegaat ko beneen nattu muy lii ñu ko tuumaal te tuumaal ko njaaloo njaaloo lañ ko tuumaal ndax ku ko doon sàkku mënu ko am jabari buur bi mënu ko amu tuumaal ko njaaloo ñu tëj ko ci kaso bi lu yàgg waaye yàlla setal na ko musal ko ca noon ya ba def ko ab yonente muy yusuf muy seydinaa yusuf wa yusufin wa bi isaqin wa xeyrihum mais anbiya in rusin lakka yàllaahu seydinaa yusufa daanu na ci teen dugal nañ ko ci kaso tuumaal nañ ko fenal nañ ko xoolal Seydina Moussa alayhi salaam bi mu demee ba nga xamee ne toll na ci war a juddu talaabe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono jooju ñu xamal fi xaw na ne ko ki lay donn góor lay doon te déwén lay juddu mu ne nañu recensé képp ku fi ëmbati ci dëkk bi wala ci réew mi nañ ko rey bu dee góor lañ fa rey mat na ay 1 million liir ñu xam ne lii du jàll te moom jabaram jëm yoroon ba dana bokk ci soxna yonent bi ëllëg moom fir xaw na yàlla may ko doole ak kattan goo xamee ne nii jàpp na ne moom dara mënatu ko tëj ci kaw suuf ba ñu defee noonu ba yàlla dogal Moussa war a judd yaay ji tiit suñ borom xamal ko ne ko bul tiit ndax man mi ko defoon am ndox def ko deret def ko lumpi deret ba def ko yàpp ba def ak roo ci biir def ay yax ci biir ba mu juddu man mi ko doon dundal ci noonu ba mu ma indi ko addina dana ko sàmmoo te dana ko def ab yonent yow jural rek dem ca tefes ga boo demee nga teg ko foofa yaay ji jur dem dugal ko ci teg ko ci wetu tefes ga jël lum ko laqe mu yendu ci ba ngoon bi fi rawoon na def conseil privé ñu dégg yuux yi ah loolu daa mel ne ay yuux la ñu ne ñëpp na teg ñu daal di dem ba fekk fañ ko tëral ñu daal koy leewu andi fi na laaj na lii lan la ñu ne ko ab liir la lu mu ñu ne góor mu ne nañ ko rey soxna si ne ko déedéet buñ ko rey de ndax maag yow ba nu sëyee ba tey mosul noo am doom kon nañ ko def kii muy souvenir ci ñun na nangu ñu ne doom nag kon mënee su ko ñàkk bañ a nàmpal nan lañuy def ñu ne nañu woo ji soxna yi ci dëkk bi kuñ jox ween jox kuñ jox rek bu génne ween wi jox Moussa euh, Moussa Moussa nangu ta nàmp ba am ko xelam daj ci so yaayu Moussa ne kooku de soxna la la woon soo xam ne si soxna su baax la jàpp nañ ne daal buñ ko ko joxee moom dana ko mën a nàmpal ñu dem woo ko mu ñëw mu jox ko ween wi mu namp ñu fir xaw na ne ko léegi gàddeel na ko ñu di la fay par weer yàlla delloo na ko Moussa xoolal natt yooyu rek yàlla ni mu ko tege Moussa mi nga xam ne nar na ko def ab yónente ëllëg xoolal toroxal gi mu toroxal fir xam naa kàttanam ak dooleem kon àddina lu fi ñëw dafay ñëwaat waaye amoon na fi boo dikkee tey jii xool Sëriñ Tuubaa mi bi mu dikkee taxaw na maa bëgg a wutu yónente bi ma wax ne lil Moustapha nawaytu maa yi jaddidu sunnatahu al xaraawi inni ahmadu ana nan la def nattu ya tàmbali ci senegal gi fukki at fu mu samp mbaaram wala mu toog fa di bind wala mu tax jàng noon yi tàmbali ko fa fekk di ko kalaame te néewul on ba ni mu ñëwee Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam ba ni mu ñëwee tuubaa ba nattu yi continué mu dem Mbàkke Bari jóge fa dem dara ana mu tey ñu yóbbu ko Gabon noonu yi wër nañ ko lu ne daj nañ ko ngir émission bi mu nar a yanu rek yàlla ne ko danaa la nattu ci loolu. anamu tey ba mu demee tey Gabon ba nu jéem jéem lu ne ñu teg ko ko sottiwul te natt bu ci ne tey buñ ko tegoon addina bépp duñ ko attan benn bi. anamu tey dañoo bind leetar bind maam non sëñ maam moo Dia ak ma Massamba ñoom ñëpp ne leen sëñ Touba faatu na ndax bëgg a tas njaboot gi soxna Fatou Issa Diop yàlla na ko yàlla doon yërmande moo delloosi moo leen delloosi na ummu salamata delloosi woon yónnente bi ci ba mu diggalee saaba yi ne dem leen wat dem leen wattu ji ñu bañ na mu leen delloosee leen Fatou soxna Fatou Issa Diop delloosee. xoolal natt yooyu yeew ci garab gasum baax dugal ci puur boole gaynde yooyu yépp li ko yàlla nar a jox mission bi bi ko yàlla nar a jox ci la yàlla nattoo Serigne xool leen loolu ba ni sëñ tubaa dellu si waatee sëñ Touba leen na ko soxna Aminta Amar nee na ko Touba bi àgg nañ àgg nañoo man ci nattu yi def nañ ma ni ñuy def xarum Tabaski mu yuuxu mu xam ne lii li may wax attanu ko mu bàyyi. Sëriñ Tuubaa moomu lu ne def nañ ko ko ci kaw suuf boo xoolee buuri àddina yi président yi fi jot toog ci ñi nga xam xoolal ne Nelson la bi ko yàlla naree jox pouvoir bi ñaar fukki at xaw ma ñeent fukki at tëj nañ ko ko ba muy gone ba bi muy génn dafa weex tàll ak bi jaaw bi ko yàlla nattoo bam attan ko fu nañu jaarale ko fa pexeem rayak ak lu nañu def ko ko mujj na jiite réew ma ba réew ma nekkaat ci jàmm yàlla kum nar a tegum nattu comme la la teg jox ay xéewal fokk mu teg la natt xoolal président Ablaye Wade bi bi yàlla dogalee mun nar a jiite Sénégal Cheikh Anta Diop junj na ko sëñ Fallou ñaaral na ko ci ñëpp gisoon nañ ko ci ne yàlla dana ko dénk pouvoir bi waaye diggante ñeent fukki at bi socialiste yi jiite réew mi ban fi mu ko jëlee lu mu fi dajul amul tëj nañ ko ci kaso yóbbu nañ ko fi Tamba lu ne daj na ko ba nga xam ne pexeem ray ak lu ne def nañ ko ko. kaso bu buy génn duggaat buy génn duggaat buy génn duggaat bi yàlla ne ko yaay jël réew mi l'an 2000 yàlla jox na ko réew mi waaw kon Ousmane Sonko mii nag tey posé ne bii nga xam ne dañ ne dañ ko koo def ndax mënoo ko xool ca Seydina Yuusufa xool ko ci Seydina Muhammad xool ko ci Sëñ ba ci buur yi nga xool ci président yi nga xool ci Nelson Mandela xool ci Abdoulaye Wade fokk mu am ab nattu ndax fokk yàlla dana ko teg natt boo xam ne mooy tax bu ëllëgee mu jox ko réew mi yan ko ko ndax yàlla du maye daraam ci zéro kenn ko nekk di tëb di dal da ngeen a bëgg daal Ousmane Sonko moom xëy xëy rek wàccub lalam taxaw wax ñaari kàddu rek ñu jël réew mi jox ko ko noonu mu dem lii di am Macky Sall defu ko ko yàllaa ko ko def jaarale ko ci moom mu natt ko ba mu attan ko bis bu ko ko yaree nag liñ bëgg lépp danañ ko am waaye na fi fekk nag nuy tamit ñu gëm yàlla noonee nga xam ne ni la ni la ni lañ gëmee yii ma la nettali la ko jiitu te nattu yi mën naa des mën naa des de bu kenn defe na dafa yomb ndax Macky Sall mii nga xam ne tey moo jël réew mi te nattu yooyu jëru ci mu tey ndax nii mu yore Sénégal baax na ñi fi jaar ci nattu yépp tey ji kenn ku ci ne biñ la joxee la nga jiita tey ji ñooña meruñu cent pour cent moom mii nag waxuma la mer cent pour cent waaye mer deux cent pour cent nattu yi nga xam ne jotu caa jaar a tax ndax ba mu dalee dugg ci administration ba nëgë ni luñ ko mas a jox rek bu jeexee ñu jox ko leneen ba nii mu jote ci réew mi ñàkk jaar ci nattu gaa tax nag tey tey jii mu mel melakaana mu mel yi mu mel yàlla bu naree yërëm aw askan bala laa jiital nit ci sa kanam fokk mu teg koy nattu ba mu xam li li nit ñi di daj ba mu xam lu metti ba mu xam loo lu neex mooy tax mu mën a jiite mbooloo waaye boo jaarul ci yooyu boo jotee am réew musiba dana am kon Ousmane Sonko nañ ko xool ca loola te xam ne inna laaha maxana waaye inna laaha maxa sabirin fasbir sabran jamilan moom la suñ borom wax na ngeen di mu muñ ko rafet ndax man maa ngi ànd ak koy muñ yi bu nu demoon ba jël paaka teg ci bule gi rend it bu yàlla nee du dee du dee bu yàlla nee Ousmane Sonko mii danaa ko dénk senegal bu Macky Sall doon dajale asamaan ak suuf ak lu mu mën a def mënta fexe ba Ousmane Sonko du toog ci kaw réew mi waaye bu yàlla nee déetit déet waaye nag nañ nangu dogalub yàlla ci lépp lu mu dogal ndax sëñ Tuubaa daana wax yaa rabbi in axtayta nii fa sukkur wa in manxata faridan wa sabru nit ki dana bëgg dara te bu gënul ci moom yàlla du ko def nit dana bëgg ci moom ci dara waaye fokk yàlla teg ko natt door ko ko jox ñaar yépp nañ koy boole di ko utiliser ndax ci suñ borom lay jógee ñii ci suñ wàllu bopp sax nga xam ne yàlla dénku benn mission bu dul di digal ñu ñu jaamu ko rek jël ay njit di teg suñ kanam moo xam ca jàkka ja la moo xam ci réew mi la moo xam ci diine ji la kenn ko ci ne li nga bëgg bala nga am yàlla dana la ci teg ay nattu yoo xam da nga dem ba bëgg a weddi suñu borom kon nattu mënta ñàkk mag ñi dañ daan toog ba buñ toogee ba gisuñu lu leen dal ci jant bi jant bi fenk ba bi mu soo dañuy dajaloo ñu ñépp ca pénc ma wàcce ay kamil na yàlla na yàlla tegi nattu kon Ousmane Sonko jërul tiit jërul ragal nañ delloo lépp ci yàlla te xam ne qul illahuma malikil mulki tuutil mulka man tasa wa tanfihal mulka bi man tasa wa tuisu man tasa wa tusilu man tasa bi yadikal xayri innaka ala kulli shay'in qadir nañ ko jàppee noonu gëme ko noonu bu ñu ko defee danañ noppalu te duñ sonn lu am rek yàlla la jóge nit mënalul moromam dara lu am rek daa fekk dogal suñ borom te li yàlla bind kenn mënu koo dindi bu yàlla nee dana nekk président makki sàll da cee man dara bu yàlla ne Ousmane Sonko dana nekk président Macky Sall da cee man dara waaye ñun bu ñu bëggee Ousmane Sonko nekk président te yàlla tudd ko duñ ci man dara ndax nee naa la lu fi lu lu lu defaata fi nekk rek waaye lu ne jaar na fi Cheikh Anta Diop jaar na fi Mamadou Dia jaar na fi ku nekk jaar nga fi jàng nañ istiwaaram waaye yàlla du jaawale mukk li gaa yu baax yi liggéey ci biir réew mi ak ñaan gañ fa ñaan ba mu nangu ko te yàlla du delloo ah bu nee ñaan googa ci Ousmane Sonko mii lay nango lay lay nangoo wallahi laxsim jëlal Firxaw nag Musaa nga teg ndax yàlla du fi jóg mukk yàlla nag dana jay nit ba mu def ba teg def boppam yàlla na nam Namrood defoon dem ba nga xamante ne dem na nee na man maay rabbu rabbul axlaa dem ba keroog bi ko yàlla naree nattu dëgg mbindeef su ndaw la ko yebalal muy aw yoo mu dugg ca bopp ba mu ne dagg leen ko defal ma ci or ay ko xool xaaroona xaaroona ak alalam ja ak Moussa Moussa fi mu jaar ak xam na jaar fa xaaroona alal jërul bàkkoo de doole jërul bàkkoo yépp ci cëri suñ borom la ku ca jéemawul yàlla da nga torox asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf